lépp lu ñu laaj Nabou Leye xam nañ ko ndax ñu ngi seen biir portable faranko toog di naan ataaya di déglu tout leurs appels di déglu toutes leurs messages maanaam y'a trois mois mën nañ ko sax commencé trois mois am patience di ko déglu trois mois looloo tax peut-être mun ni enquête bi du gaaw a boucler parce que peut-être ñu ngi déglu ñu ngi am yeneen piste soo leen bëggee ñoom ñu jox leen kan moo envoyé agis Dabala xaalis bi mais secret la de l'enquête la le secret de l'enquête la le secret de l'enquête la duñ ko wax parce que dégg ngeen benn yoon ñu leen tel jour Aziz Dabala envoyé nañ ko tel somme diw la parce que dégg ngeen benn yoon presse wax ko presse bi ndax dégg ngeen benn yoon mu wax ci transaction xaalis bi doo leen ko dégg ndax dégg du leen ko wax am na dig fu yam ak ñoom fu ñuy yam ak ñoom mais man démb wax nañ ma ko démb démb wax nañ ma ko yónnee Aziz Dabala xaalis bi lu dig de am na ku li ma xel sel li ma gis ne muy daw nii diw mii moo envoyé xaalis bi mais parce que bëgguma ko wax bëgguma fa jëm bëgguma fa parce que parce que parce que parce que waaw léegi ñoom ginnaaw ba ñu fenee seeni fen duul seeni duul wax seeni wax def seeni def dugg seeni dugg rey doomu aadama rey doomu aadama ba pare boole seen pataaral ñu xëy la libération tey ne portable enquêteur yi na ne portable Aziz Dabala ñu ngi ko jaay fi nga xamante mooy Colobane ñoom boobu garaaw déggu bi encore da ñaari portable ñoo gënandoo studio bi ñoo gënandoo studio bi lu tax benn bi ñu jaay ko marché Ocass yow dig dañoo foor quoi man ñii moom yéen yéen yéen yéen waaye yéen yéen di ngeen jàpp ni yéen di jàpp ni man damaa toog di ndamoo dik parce que ce sont des sénégalais da ngeen jàpp loolu yéen da ngeen jàpp ni li may toog naan dik sont les meilleurs pas sont les meilleurs ñoom ñooy le meilleur des enquêteurs en Afrique da ngeen yaakaar dama ko wax pour nii pour des beaux yeux parce que son des sénégalais may war a may war a may war a di défendre waa dikk wala may war a euh, di leen wax ni pour des beaux yeux parce que ay sénégalais la déedéet parce que dama xam xam leen dama leen xam wees nañu loolu sont les meilleurs peut-être transformation nañ ko laaj la lii la moo la ko def mu tontu leen xanaa foofu du leen fen aka fen na fen fen ba à point sama benn benn ancien ministre daf ma envoyé benn photo Nabou ba mu nekkee si appartement bi mu ma ki mu reen ki ki ñu rey si la ñi xam na xamoon lu xew dégg ngeen démb ci ngoon ay vers treize heures quatorze heures quatorze heures am na xam na jékki-jékki na ma fii ñu wooma ñu wooma ñu wooma mu ni ma kii bokk bokk na si li def ñi def ma ko ah mun ma waaw kaay jox mun ma xol téye sama portable xoolal non parce que moom ñoom xam nañ ma peut-être mooy léegi déjà Paris waxoon démb. ne kii wax ni peut-être dañ ko xam mais man xam naa ko te kooku elle a des valeurs xat déjà boobu man duma fenal doomu aadama ma xëcc nabu nii laa def nabu xëcc xaar leen leen xaar leen moo leen photo bi je pense que def naa ko fi xaar ngeen xool nabu elle m'a déçu pas tellement déçu bëgg moon ko fi laal mais nag <laughs> ki ma xam lépp xam nañu xel mu sell dafa tàmm di wax ni la vérité s'appelle Dieu <laughs> loolu laa tàmm di wax di la vérité s'appelle Dieu vérité s'appelle muy photo bi rek la gis photo bii rekk la gis mu ma xel ki mu ngi jàkkaarloo Aziz ma ne ko waaw mun na photo euh, vidéo bi mu ngi woon ci kër Aziz ma ne ko waaw mu ma kii li aj bët kii pourquoi elle te mu ngi jàkkaarloo ay portable ne da koo gis si vidéo rek capté ko ne ko karaj man ma xaaral ma woo sama woosoo sama doom jox ko ko mu ba ma ko gisee ak li ma dégg suba gi laa ne kii am na lu mu xam si ray bi moom ma kii xamoon ni Aziz Dabala dañ koy rey ma jël photo bi zoom nii ma jël photo bi nii zoom ko nii comme ni ma ko defee nii ma jël photo bi zoom nii ma jël photo bi zoom nii ba ci peru bët bi ma ne elle pense à quoi lan lay xalaat pourquoi mu jàkkaarloo Aziz elle n'est plus nekkutu foofu nekkutu fa boo xoolee nabu fii voyage nekkutu fi nekkutu si milieu boobu ma ni nan lay xalaat